mooy ñu bàyyi ba yoon leeral parce que ñoom ñaar ñëpp ci APR la nekk fa la nekkoon am de nit nag boo leen bokkee teen ñu dem ba laxasoo doj problème am nanu toog xaar ate bi ku yoon may dëgg rek sénégalais yi seen bët lañ yor parce que fii kenn mënatul nax kenn ah. no mais mais est-ce que est-ce que du du le problème du du ñoom mais pourquoi sénégalais di jot information yi tardivement parce lu jëm ci jamaa mu Sénégal xam ñu ne suñu ressource jamaa bokk na ci. mais ki daan joxe information ah di dem ba euh, Kër Massar di joxe information naan tay la na bàmmeel lu tax information bi génnew ko woon bii moo gën a garaaw information yi mu doon joxe. nan waxante dëgg quoi am na loo nga xam ne nit bu koy gis da ngay xam ne lii lool moo fa nekk ñoom seen leader moo daan génn wala seen gars yi ñoo daan génn joxe nit ñi xam ne lii ñu ni dal leen yee gis nga Sénégalais moo fi ëpp. parce que chaque jour naan dañu yee Sonko dañu yee danu yee mais lox yeewu leen si ay jamaa xam nga luy jamaa ñoom sax am na luy jamaa mais dañu waroon leeral si jamaa bi nit ñi seen xel gën a màcc mais mu dem ba waa bennoo ñoo ko génne problème am si biir kon am na lu si lu si lu si luus am am na lu si luus nan bàyyi yoon def def liggéeyam waa tey bu doon si ñoom sama yaakamti leen torop boo wax leen ko mais comme du ñoom da ngay xaw a kii <laughs> Wade coowal ressource aussi mi ngi fi ba léegi jamaa découvrir nañ ko Sénégal am na fi amu fi ba plainte dugg na fu dool ni euh, ñun li ñu am moo ëpp jamaa Sénégal li ñu am moo ëpp jamaa mooy mag ñu baax ñu fi tëdd. problème boobu laay génne foofu laay laay génne si euh, diine yi ñu wax si euh, jamaa. a laay nan bàyyi diine yi non ak yow. yow da nga da nga ba mu ëpp. man dama gëm ni dama gëm ni suba man li may xeex. Mhm. dama gëm ni suba. Mhm. damay geesu gis la sama wet. waaw sa xalaat la. non xam lu tax. waaw dafa am dafa am loo xam ni gëm-gëm la. Mhm. te gëm naa ni mu ngi ci yow. non loolu dëgg la. mais comportement bi ngeen koy xeexee non non dama dama lay wax. parce que du loolu. parce que parce que xama xama non voilà voilà voilà. mais loolu man mais damay ñëw. du ma ko def damay ñëw xam nga lu tax. gis nga Cambérène bii ma dëkk am na loo xam ni. dëkku diina la. Mhm. dëkku kilifa la. Mhm. man rus naa di fi xeex wala di fi xuloo wala di xëccoo si ay politique dara di loolu àdduna la yam non amu fi. Euh, loolu loolu sax. laay am na fi de. waaw peut-être peut-être li ma fi li ma fi raan. barki démb Njaay rek ngeen na doon dóor fee benn booy maa si taxu intervention. waa mais loolu loolu loolu moom. Euh, man euh, góor a encore une fois ñun dañ am lu ëpp loolu. Mm-hmm. valeur yi ñu yor ñun Sénégal. Mm-hmm. loolu moo ñu ëppal solo fuuf li nga xamante ni mooy jamaa. gis nga liy développé le Sénégal suñu ressources yi moo ci gën a tuuti pour dëkk bi jaar yoon suñu ressources yi ñoo ci gën a tuuti gis nga problème mu jamaa boobu ñuy wax damay jéggalu sax waa waa Pastef ndax dañ nekk ci leneen lu dul lu ñuy divertir genre. ah mais mais non kan moo ko. non non damay wax vous êtes des Sénégalais vous êtes des Sénégalais. Pastef ci Sénégal la bokk. mais xamal lu tax xamal lu tax sunu ressources yi muy wax ah. lii mooy yor Sénégal parce que boo demee en Europe. boo demee en Europe seen ressources yi ñoo leen dundal. non Europe mais Europe amul ay nit ñu baax. Europe amuñu Europe ban maam bu baax exemple. Euh, Europe dana am seen Europe amul amul ressource. Europe dana am li ma amul ay. non Europe amul ressource. ah ñoom ñu am léegi seen dëkk ñun ñu wax ay ressources ay ñun ñu baax ay maam ñu ba noonu. mais dama ni Europe dafa amul ay ressources. kon lan la mais ay dirigeants patriotes la am ñu bëgg seen réew. yéen li ngeen wax Macron yëpp. ngeen ñëw non wax non parce que kaa ma wax la lenn. <laughs> waaw parce que man su ma sañoon man su sama président Sénégal am fulla bi Macron am. bu ma mënee nax beneen réew di jël. alalam di ko indi sama réew ah. di ko jox sama waa réew di dem beneen réew di jël seeni ressource di ko indi sama waa réew di ci jariñu ba mu jaral waa réew waa continent boobu Afrique mu jaral leen ñuy dugg ci gaal yi di rejoindre li nga xamante ni mooy Europe su ma amoon président bu mel noonu ma ni ko merci parce que tollootuñu si jamono yi lépp dafa leer. loo bëgg Sénégal mais mais da bëgg da bëgg wax ne da nga bëgg wax ne président bi nekk amul problème boobu. jamono jii la wax am na ay ressources mais ay années passées. mag ñu jëkke fii dara amu fi woon kenn gisu fi woon dara kon France ak yeneen dëkk yeeg développé nañ avant Sénégal. non xam nga xam nga xam nga. góor a des euh, sama gars yi ñoom dafa am dafa am lu nekk ci ñoom waa euh, xaw ma nan la leen gars yi tuddee sax. voilà ñoom dafa am lu nekk ci ñoom mooy que ni moment bii nii franchement ñu baal ma mais ba léegi yeewu nañ ñu ngi xool nii. jóg nañ ba toog ci lal bi mais dañ nanguwul teg seeni tànk ci suuf est-ce que comprendre nga. voilà mooy que ni saa su ne. dafa am loo xam ne dafa am ñaar man su ma rejoindre Pastef su ma toppee projet bi nga xamante ni moom la ex Pastef teg parce que Pastef sax léegi amatul ex Pastef voilà ex Pastef teg ah projet boobu man su ma koy topp du sama intérêt personnel. mais bëgg naa li nga xamante ni moom la samay waajur pertoon li ma samay waajur pertoon man na am loolu mais waay nanu may si projet passé parce que projet ñoom dañ naan projet projet mais projet da nga ñuy waar wala ngeen wax nu lan mooy projet bi man damay dégg projet projet xaw ma lu pour pour ma man leen topp sax xam nga nit boo koy boo boo koy fekk si da xam si li mu nekk noonu la man su dee bëgg nan ma fekk si leen sax nan ma wax seen projet mais suñu projet weesuwul weesuwul Sénégal bu avancé lan mooy avancé loo Sénégal man sax man naa Sénégal bu lan mooy lan mooy avancé loo Sénégal xam nga mooy li ma ko wax léegi ressources yi mooy li gën a tuuti ci li nga xamante ni bii moom mooy njariñu Sénégal Sénégal dafa am xoolal affaire jamaa bi xam nga xam nga xam man lan moo tax man ñun duñ ci duñ ci mën a sori ñépp ci APR lañ nekkoon kii dafa nekkoon directeur Dakar Dem Dikk ñu jële ko ci post bi mu génn berlangu boppam kii stratégie politique la nekkoon na fi ministre de l'intérieur ba fi mu mujjee yegsi jël yoonu boppam comprendre nga mu am keneen koo xamante ni bii moom lañ samp muy Amadou Ba mais dama la bëgg a xamal ne la ñun saa yu ñu yëkkatee suñu tànk war ko teg ñoom buñ gasee pax ñun xam nañ fi ñu war a teg suñu tànk mais duñ ko dugal ci pax boobu. wallaay boo nga xamoon. dama ciy ñëw dugg si kaso bi de. dam loolu boo nga xamoon Sonko du dugg si kaso bi de d'accord ma de. Maître Moussa Diop Maître Moussa Diop bu demee. ba indi ay lool bu ko nangu. waaw mais damay ñëw mais nee na ñoom euh. non dafa wax lu dafa wax lu important lu nga xam ni nee na ñoom bu ñu yëkkatee rek ñun bu ñu gasee rek. bu ñuy waaj a dugg xam nañ fi ñuy dugg mais lu tax seen ñu xulee ñoom ñi doon xeex chaque jour di taal di manifester wu wax Sonko du dem. waaw bi nee coppet ñoom ñëpp yënguwunu mais mhm. quel la le problème. voilà ci ban moment lañ ko ni coppet parce que loolu. bi mu jotee ñëw gis nga ci ci ci ci ci côté boobu mooy maître Moussa Diop. moo génne ay information taxaw assumer ay responsabilités mais man côté jamaa bi mu wax man du loolu moo ma gën a du loolu moo ma intéressé man. xam nga lu tax non damay ñëw non dafa wax non mais non pardon. ku ne patriote ngay xeex du la non non. xam nga lu tax non mais mais dañuy dégg xam nga lu tax du ma intéressé. mooy que ni maître Moussa Diop moo ko wax yor ay documents mu jaral ko ba journaliste yi mu jàkkaarloo woon ah di leen ko wan kon kooku mu ngeeg ay preuve léegi lan moo ci des. ñi ko war a woo woo ko woo nañ ko mais nañ continuer loolu parce que loolu la Sénégal bëgg. mais buñ ci topp mais man xam nga lan moo ma gën a lan moo ma gën a frappé ci wax ji problème mu arme bi mu ci wax arme bi wàcc port ci turu présidence présidence mu wax ci ba tudd ci ay chauffeur ñoo xamante ni bii tey sax mën na nekk ay innocent ci mbir mi arme yooyu après li fi xew lan moo fi doon xew mooy que ni dee na lan moo ko rey balle lan moo ko rey bal rayal yooyu rek ngay dégg bal balance lañ ko dóor bal rayal lañ ko dóor ay sénégalais di ci dee. la yéen a ngi ay cocktail Monatel de. mais loolu dafa am bu amee. ay cocktail Monatel yéen lu leen wax ak yéen loolu justice war na ci wax. man buñ jël affaire de jamaa rek parce que jamaa mbir la boo xamante ni bii su fekkee am na fi tôt ou tard dinañ ko xam mais pour man balaa jamaa yi ñuy lijjanti mbiru jamaa yi nan lijjanti lan moo dugal armes yi fii ci dëkk bi. jaar fi mu war a jaar ba mu tudd ci ñi ciy tudd su fekkente ni dëgg la ñu topp ñooñ su fekkente ni du dëgg moom mi génne lu rëy loolu ñu xamal ko ni carrément kat lii nga génne lu rëy la mais gis nga ñun kenn mënuñu yóbbaale dama ni ëtt la buntu nekk yëpp dañuy tijjeeku jàkkaarloog ëtt bi tôt ou tard ñoom waa bennoo la stratégie bu ñu teg ñoom la li tax ñu koy def ñoom la lu tax ñu toog ba heure bii génne information bi ñoom la mais ñun dañuy focus ci 111 bi. laay waxoon naa ko nem si yàlla gi Papito Kara émission. Mhm. ma waxoon ko ni ko Sonko du bokk gëmuma yaa ngi dégg mu ni ma dina toog plateau par yàlla jël ko si diggante ma koy ñaanal yàlla ko yàlla yëngal. foofu nag foofu nag laay laay taxaw laay taxaw góor a c'est c'est quoi le problème ak Sonko du bokk deen ko ragal wala aura bi Sonko am tey qu'on le qu'on le dit qu'on le veuille ou non Sonko tey jeunesse moom la jox nopp.